ndax damaa ma gàtt léegi. Hmm. tey gisuma kenn ku ma koy waxtaanal wala ba di ko fàttali koog yooyu. Hmm. waaye daan naa cee yëngatu bu baax. Hmm. xam naa ne daal bis mi bis mi. ñett la ci alxuraan. xam nga. bismillah yi mu jëlee xaa ci ci ut noonu mi ne Suleymaan wano bismillah rahmaani innahu min Suleymaana wa innahu bismillahi rahmaani ca saalu bismi ñu di ko tënk foofu nag am na faatiha am na uur am na namli fa hunna lañ koy. waaw fa hunna faa ak alkubé rek mu nag. faatiha ak óot. ak namli. waaw. nee nañu itam. inna kasiran yi ànd ak minan naas yi. ñett dong la ci alxuraan. ku la joxaat beneen nag fa juum. xam nga. déedéet. dañ koy tënk mayor. mayor maji mooy sóorut Maïda ba nga ko jeexal da nga gis nekk seeru ñu ne bi yu mooy Yunus am na fa bala nga ko jeexal da ko gis. royu mooy sóorutu Rum boo koy jàng balaa jeex da nga gis nekk seeru ñu waaw. la am déet ñaar ñaar. yeyun dañoo mel noonu ba noppi bokkuñu nag waaye yeyun la ñaar fukk lañu ñaar ñaar ndax ñaar ñaar ñaar ñaar a ànd yii ñaar a ànd ñaar a ànd ba muy ñaar fukk. xam nga. voilà koy laaj ba Cheikh. ñu di ko tënkee sa sa ni ni hi hi ki ki fi fi mu. lu ru ru na na ja ja mi mi loolu tënk bi. est-ce que. lu dem. waaw. cha cha laam dem mooy liif wax ni gi dafa ànd ak laam boobu. Hmm. dañu bañ nga def ko illaa yoo xam dama liif. <laughs> kon nag illaa ju njëkk ji nga xam ne sa sa la suñ si tooy dafa saxaawu moo nag man nañ ko daan jàng rek cam cam man njëkk ya man la ko xam sa sa mooy illaa sayaatiini im laam illaa say in ca xamar mhm. illaa sa lam debo ñaar mhm. illaa yooyu yu songi suñ su tooy foofu mhm. rek nga koy gisee ku la waxaa beneen da lay ni ni ila nisaikum laan ila nihaajiha nihaajihi ca njombaan hmm. ila ni laam de ba ñaar yooyu la hmm. la waxaat ni ila ni amaat na fenn da lay ci kamil bi xanaa sama hmm. sa ni ni hi hi laam ila himlihaa ca fandaat ñu sóoritu fatili ila hi laam de ba ñaar dootul ba kira alxuraan di jeex Mm. ki ki ila kitaabillah ye ngi laan ila kitaabiha ca jaasiya mm-hmm. ila ki lam de ñaar mm-hmm. mm-hmm. la doo toog gis mu kër alxuraan jóg jeex bu la wax beneen daa jóg ki ki fifi ila fiyatin lan faam ila firaw na yoo gis ca fi lam de ñaar dong la ci alxuraan doo toog ko gis muumu ilaa mu baraan ilaa muusa yoo gis cera ilaa mu lam de ñaar doomu la ci alxuraan ru ru ilaa rukunin oot ilaa rubutin muumin ilaa ru lam de ñaar doomu la ci alxuraan amaatul nan na ila na lee ngi na li ila na na lam de ñaar loolu ko gis ba alxuraan di jeex อย่าเหยียบilaa hmm. jannayi kaa ngi tey hmm. ilaa jaanama joo gis ca la hmm. ilaa ja lam de ko mimi ilaa mi ati alfin baam ilaa mi xaati ca tukaay ilaa mi lam de ñaar beneen boo fi gisaat bokk ca da borom daa jiw ku la ko ma loolu lañ <laughs> tabarkalla ah, macha allah yii mooy bàyyi la waxoon ñi di ko tënk sa sa nit ni hihi kiki fifi mumu buuru la yaya mimi mm-hmm. waaw mm-hmm. tabarkalla lool mm-hmm. ñu tëjee ko leneen ay alxuraan yu yu ci fin mas koo gis xam nga fin fin neex ko waaye fin fin ñaar dong la muxtalifin ca saar min xaw fin ca saari gone ila fin faañoor laaye ñaar bu jeexee aaya waaw boo xam aaya jaafa jeex nga ni muxtalifin saar min xaw fin ca gone fin faañoor laaye ñaar waaw ay alxuraan yu jeexee ci wan mas nga ko xam xam nga ñaata la ci alxuraan wan. wan xanaa ñu laaj la ko rek. ma ne la si wan ca tey sar wan saariyaat wan laaya ñaar dootoo ko gis ba kër alxuraan di jeex. waxaatal ma dégg. si wan ca tey. Uh-huh. sar wan uh-huh. wan muy laaya ñaar. est muxtalifin saariyaat min xaw te gone ye fin faajoor laaye ñaar tabarkalla macha allah ah Baye Cheikh jërëjëf moom mooy xalifa Thiénaba moom lañ ñëwoon seet si moom ak sama papa ñoo bokkoon daara doon jàngandoo ma ñëwoon tey nag doon ko yëgal si xadratu jumaa bi ñu def ci stade Amadou Barry defaale occasion waxtaanaale ak moom Baye Cheikh jazakallahu xeer yal na fay la yow. yaa rabbi am na sax leneen loo xam ne gàtt na waaye du boole ko ci. Hmm. makki boo gis ci alxuraan day sëdd keef. Hmm. makki dafay sàdd keef. Hmm. tukki joo gis rek day sàddal moom. mu ngi wax nag makki sàdd keef tukki sàddal moom nga jóoru ñaar. makki nag tukki ni Macky muy Macky Sall teex hmm. Macky Sall noonu hmm. ñu nga ñëw ñaar hmm. barkalla jërëjëf jërëjëf baax